mu ne la ko waxee rek euh, moom nekkul euh, lii du premier euh, sortie yaa ya yàgg naa jëfante ak jeunesse thiessoise bi en particulier nawetaan yi depuis bu mu nekkee premier ministre d' abord ministre du budget premier ministre président de la commission des finances et d' abord en tant que thiessois parce que moom d' abord lu muy njëkk xalaat mooy Thiès la Thiès la soqee ko Thiès la jàngee école primaire école secondaire lycée dem université dem ENAM génn mu xam ne kon boog amoon nañu ko aussi cees te booy booy liggéeyal Thiès booy liggéeyal aussi dëkk ñi nga jege gën a xool mooy les jeunes parce que ce sont les jeunes qui deviennent des adultes de demain dans ce cadre qu'on fait ces événements qu'on fait ces sorties qu'on aide les jeunes notre ambition c'est d'aider la jeunesse xale li ñuy jàppale jigéen yi ak tout ce qui est social ñu ngi ci mosquée yi tamit ñu ngi ci ancienne gloire yi ñu ngi fu nekk fépp foo xam ne daal nit yaakaar na subaare mën na la dimbale boo ko sollicité dañuy def lu mu mën voilà jàppale waa Thiès voilà. te li muy maye mooy au quatre-vingt-quinze ASC ku nekk dox na jeu d'équipement complet dix-huit maillots dix-huit culottes dix-huit jeux de bas ak ku nekk deux ballons loolu tamit euh, doléance yi xam nañ ko dégg nañ ko daañu ko transmettre dès demain lu mu ci mën tamit na ko def. waaw donc loolu dañ ciy kontaan. parce que équipement yi ñu fi joxe tey équipement de qualité la te ay ASC soxla nañ ko xam nañ nawetaan mi ngi waaj a commencé le premier août et que ASC bu ñu ñëwee tey leen jox ay équipement maillot culotte bas surtout ballon mu nekk ay outils de travail donc dina leen permettre aussi ñu gën a mën a defaru pour mën a commencé nawetaan dans de très bonnes mais peut-être tey leen nit ñi yëg lii parce que li ma la ko waxee presse bi euh, parce que bi mooy ñetteelu yoon aju bi di ko def. d'ailleurs ñun ñoo waxtaan ak Sénégal sani ko bëggatu ñu koy def ci ay biir kër nañ ko def ñëpp yëg ko parce que aussi nit booy def lu baax rafet na aussi nit ñi yëg ko donc aji bu yàgg naa jàppale nawetaan ci moom lañ amee ñu ubbi stade de Maniang Soumaré euh, Lat Dior je crois naa ko sama discours parce que chantier Thiès dañoo tuddee stade de Maniang Soumaré il était premier ministre ñu seeti ko wax ko ko 15 jours après mu woo ñu le président doon ubbi ko ci ubbi woon ne ak yeneen yoo xam ne def na ko loolu su amee nañ ko ci remercier parce que dañoo jàpp ne mu koy def da koy def parce que Thiès dëkk parce que bëgg na Thiès donc loolu tax vraiment tey ñu sawar ci ànd ak ASC yëpp ñu taxaw fii gërëm ko sargal ko war aussi bi def aussi ASC yëg nañ ko te li mu jox ASC aussi ñu ko utiliser ba nga xam ni war nañ ko soxla nañ ko.